mbokk internet sa safoo teewlu info 2STV dal leen ak jàmm ci xibaar li leen di ay kàddu euh, kii ab euh, Pa Assane Seck euh, gannaaw nag ab émission boo xam ne mi ko doon amal moom nag daal dina àddu jëmale ko ci mbirum Bassirou Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko ci coow li nag nga xam ne ñoo ngi koy àddu boobu ba léegi gannaaw ba ñu validé wul candidature bu Ousmane Sonko ñuy xamle nag kii di Diomaye mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko itam. moom mooy euh, Diomaye moom nekk Pa Assane Seck nee na jamono ji euh, coow li coow yëpp nag mooy libéré euh, Diomaye ngir rek ñu bàyyi Bassirou Diomaye fay mu génn ci prison bi ca euh, dellu ci këram ngir mën a waajal campagne électorale am waaye nee na bu ñu rombee foofu te loolee yal na am nag dafa yàkkamti ngir euh, déglu leen maanaam déglu candidat yépp nga xam ne bokk nañ ci élection palum njiitum réew yi ñu dégmal bi xam kenn ku nekk rek euh, lan nga indi wala sax kenn ku ne lan mooy doon sa programme ne na nag. ñi nga xam ni dañoo bëgg jomaay wala sax dañoo bëgg Ousmane Sonko ñoom seeni kaddu leen rek la dañoo war a doon eh, benn waaye itam Ousmane Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko nee na. di xaar itam ne Ousmane Sonko foo joxoñ rek ñu daal di ko dagg nee na nag ñi nga xam ne dañoo mel ni moom nag ñoom dañuy wax ne moom nag seeni carte ñoom ñoo ko moom dañuy xaar rek déglu candidat yëpp ngir nag mën a xool ku ñu daal di daal di ko votel ci noonu mu xam le ni moom dina dem woote ji mu ngay sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement ku Sénégal ngir rek ñu daal di libérer les détenus euh, politique maanaam détenus yi nga xamante ne jamono ji ñoom la ñu jàpp euh, ci prison yi te nag a jaarut yoon ba tax na rek muy sàkku di ñaan ci njiitu réew mi Macky sàll nag bu fekkee. moom moo amal mbir mu nu mel ci coobare boppam na leen libéré waaye nag bu de keneen moo ko ko digal nag na xam xamle loolee nag nekkul lu jaar yoon ba tax rek moom Pa Assane Seck moo ngay sàkku eh, ngir rek ñu daal di libéré détenu eh, politique yu nu mel di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen a eh, ci suñu chaîne Info 2S TV ngir ngeen di wéy di am suñuy xibaar.